waaw tant que sénégalais votez voté le 24 février le 25 février 2024 man maay chef de l'opposition xam ni nit nit Sénégal malheureusement Nous de nous Nous dañu de nous dañ dul wax dëgg je suis le chef de l'opposition lan lan moo def lan mo tax ñu nangul Macky Sall puisqu'il a eu 58 des suffrages que moi président de la République ba le 25 février ñep di xaar nanguko man may chef de l'opposition Bitane de déglu man may chef de l'opposition Bitane situation réewam taxaw mu tan ne loxo bi ma président pour sauver rewmi dama koy nangu en tant que chef de l'opposition parce que yenen chef de l'opposition ci yenen rew amna lenen luñu tan ñu tan ok Covid baa ngi ñëw jafe-jafe yi dana yokku nañu danel nguur gi bah, lu ca muju kan moo euh, ibeka au Mali kan mo jël pouvoir bi kan mo danel Alpha Condé ku jël pouvoir bi Burkina Faso voilà opposition société civile tàng marche xex toj etc. cetera nguur ga daanu armée ñew ne chopet luñ jaman ñay ngay ci Afrique di wut fuñu ñu puisque armée ba yemul ci loolu daf na leen yéen ñëpp dama leen di jàpp mais loolu ngeen bëggoon moo am senegal jamais de la vie jamais loolu question responsabilité la mën nga sa xel gàtt nga ne d'accord affaire bi bu ñëwee jeunes yi dinañ gën a mer ma xamb leen jëñax leen ci kaw Macky ñu daaneel ko dem lak dem toj et et alors nga c'est idiot de penser ça c'est complètement idiot de le penser Merci. voilà donc j'ai choisi mais je suis le chef de l'opposition jusqu'à jusqu'à ce que le peuple redistribue ses suffrages pourquoi ce serait valable pour le président de la République et pas pour moi Les gens disent, ouais, il n'est plus le... Je suis le chef des...